sofooru taxi yi ci wàllu boppam ñoom ba tey ñu ngi laaj seen wàll ci wàllum fond Covid 19 bi nga xam ni moo leen di dimbali ñu mën a xeex ak mbas mi mu toll ci gën kaa néew juróomi téeméeri millions yoo xam ni ba tey jotuñu ko li ko waral moo di ay lenteur administrative yoo xam ni ñoom ñu ngi koy ñaawlu. fond bi nga xam ne euh, moom président génne woon ci bi mbas mi commencé mois de mars avril mai euh, taxi amoon ci lu tolloo ak 450 millions. 450 millions yi xam ngeen ne amoon na lenteur boo xam ne xamuñu woon fan la toll ba taxoon euh, ñu ne nañ ko boole ci suñu ñaxtu yi. leneen loo xamante ni metti na leen moo di moto cag-cag yi faaw rekk ñu jëlee leen ci circulation bi ndax bu ñu sukkandikoo ci ñoom yooyu li jumtukaayu yu dem ak dikk warul sax di yëpp ay doomu aadama. capital bi périmètre bi mu am dafa ndaw ak euh, ni trafic bi euh, dansé embouteillage bi. gis nañ ne moto càq tchak su fi duggee di transporter nit mën na indi ay conséquences te mi ngi commencé di ko indi parce que agression yu bëree bëri ci moto yooyu lañ koy constaté ak même accident yu bëri ci lañ koy seetlu ñu gis ne aussi ñun source source de revenu dafay wàññeeku ci loolu parce que dañuy fay assurance yu cher yor ay licence am agrément am droit pour mën a exploiter euh, transport urbain mais da ngay gis koo xam ne jarbaatam dafa toog liggéey mu dem jënd benn moto trois mille jox ko ko. visite technique bi nag bu ñu sañoon ñu yokk ko ndax bi yoon ñoom boole wuñ leen ci ñoom chauffeuru taxi jàpp nañ ni sax ñi ko gën a yelool mooy ñoom ñi di daw ci wàllu transport en commun. taxi ak njaga njaay ak biis ak yépp 6 mois la ñu def seen visite technique mais su fekkee ne da ngay yokk nga yokkal ñëpp boo ko mënut nga yokk auto transport en commun yi bàyyi voiture particulier parce que particulier day toog at doog dem centre bi. taxi wala auto transport en commun bi day toog 6 yu nekk mu dem ci centre bi kon kooku la ñu waroon yokkal wisita mais dañ def sens contraire bi lañ def. centre bi la fay dem ci xaalis l'argent contribuable la euh, alalu nit ñi ñoo fay dem ñu bëgg centre boobu ñu audité ko audité ko te ministre bi taxawal benn comité de suivi boo xamante ne bii ñun dañ cay bokk xam alal ji dem centre bi fan lay dem. ab marche boo xamante ni waroon nañ koo amal mu di ab dox ñaxtu arrêté bu ministère de l'intérieur bi nga xam ni dafay tere lépp luy daje moo tax ñu mujj ko dàkkal ba jëmmi jamono loole nag terewul ni li leen metti ci secteur bi ba tax ñu di ko jooytu daañu ko wóyal di ko fësal ba keroog ñu ci am ab saafara